dañoo rëkk seen loxo ci signal America is over It's over. I don't have any mercy for them. No, I don't ready for help them. Do you see what they do now? Do you see what they do now? Do you think they welcome in America? They're not welcome. You don't beat women here. You don't throw women water here. You don't women to here. They need to get get the hell out in this country. We don't need them. I'm not going to help them. I'm not. And if I can help talk to Joe Biden, I'm going to tell send all Senegalese people back home. They're not nothing. But why? Because they're fucking rot. I'm saying it and I mean it. They're not nothing. They're not coming here for work. They're coming to destroy America. Let's say the truth. Why they don't come to the right way? Oh, but they don't have possibility to get They have a possibility. They fucked up in the mind. They don't respect them country. I know. I'm not gonna help them and I don't have a mercy for them. They need to get the hell out in this country. They don't respect women. What they do to Africa is not gonna happen here. If you don't respect a woman, eh, in Senegal. Don't come here. Thank you very much. fii kenn du fi dóor jigéen kenn du fi non du ñëpp nga ni ñëpp laay waxal mu munoo wax ni ñëpp la du ñëpp du ñëpp waxuma ñëpp am na ñu fi ñëw jaar feneen ak feneen te respecté nit ñi toog seen kër yi mais doomaraam yi di taxawaalu ni tekki wuñ dara yàq Sénégal bëgg a ñëw fii yàqaat ko nee naa la am na possibilité wax ak état américain danaa souligner Sénégal ay terroriste lañ laay wax barke alxuraanul karim ay terroriste lañu. dañoo bëgg a ñëw taal Amérique yàq ko mooy xale yi taxaw fii yëpp du ñëpp nag ñi jaar mais genn walla gi jaar ci boodo yëpp ay terroriste lañu. maa ko wax.